gi ba léegi ñu ngi àddu ci moom li ko waral mooy benn gaal dafa dal di suux ci géeju Wakaam brigade sapeur pompier yi dal di fay yóbbu ci suba teel ñaari équipe bu plongeur ñeenti ambulance ngir ñu door opération yi commandant bi xamle ne lu toll ci fukk ak juróom ñaar ñoo ca loru bokk na ca fukk ak juróom yu ñàkk seen bakkan ak ñaar yu ñu sowe bi 7 heures jotee ñu demare suñu opération yi donc 7 heures ba 10 heures 6 ñu ngi doon def les permettre nañu ñu génne encore fukki koor ak ñaar donc au total bilan bi mooy fukki koor ak fukki victime ak juróom ñaar la ñaari ñi ay rescapé lañ fukki ak juróom ay corps sans vie nit ñu décédé lañ. ay waxtu ginnaaw bi la jëy joriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi ñëw xool mbir mi nu mu tëddee dal dinay ñaawlu faatu fukk ak juróomi doomu aadama yooyu dal di it jébbal njaalu gouvernement bi moom Antoine Félix Diome nag bokkoon na ci li ko yitteel mu xam dispositif bi nga xam ne marine nationale taxawal nañu ko ana naka la doxalee. ginnaaw bi la alerte. su démb bi ñu yëgee euh, mbir mi am na suñu ñaari bateau yu fi nekkoon d'ailleurs bi ñuy egsi am na benn bi mu ngeen gis ak euh, ñaari euh, embarcation yu ndaw même bateau bi ñu nekk nii actuellement muy ngi foon également démb ci démb ci guddi donc bi mbir bi xewee ñëw nañ voilà pour jàppale nit ñi xool ñan ñoo ci mucc pour jéem leen jàppale et xool aussi ñi ci loru pour mun leen génnee jàppale leen ak sapeur pompier yi. néew yóbbu nañu leen kër docteur bokk na ca hôpital militaire bu Wakaam hôpital bu fànn dalal jàmm ak centre de santé bu yëmbal recherche yi nag jamono ji danu ko dakkaloon ndax taw bi waaye ab équipe bu sapeur pompier lañu fa bàyyi mu toogandi fukk ak juróomi néew yi nag dafa ñëw rek yokk ci listu fukk ñett migrants yi nga xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan ci géeju Maroc ayubés bi ñu génn wala sax ci fukk ak ñeent yi nga xam ne ñoom itam ñàkkoon nañ seen bakkan ginnaaw bi seen gaal suuxee ca Saint-Louis